ابن محمد ابن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله ورضي عنه تي جتاي بي بي ويسو تامبالون نانيو تي في امام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نيجي نيغي يمون في امام الطحاوي رحمه الله تعالى دي وخنان خالق بلا حاجه ا مانام خالق مومبورم سبحانه وتعالى موي اجي بند بلا حاجه كي لو امولك moy raziqun di aji wërsëgale bila mu'na ci amul ci lu amul yuqat mumitun moy ki raye bila makhafa ci lu amul ragal waye ba'isun moy aji dekkal bila mashaqqa ci lu amul xat-xat kon ci sun jotaay bi wessu gisoon nañ ci wal ci al khaliq manam ne tour yàlla la mom nga xamne moy borom subhanahu wa ta'ala mom mo amal minde fi te amal gim len amal amale ko amale woo leen ci lu jóge ci dara Euh, gisoon nañ tamit ne bu fekkente ne li borom subhaanahu wa amal daf ko amal te jugiwul ci dara dara dara maanaam amul processus bu mu topp lu dul ne borom subhaanahu wa moo ne ko nekkal mu nekk loolu euh, ci a loolu la ñu tuddee aalamul amr euh, loolu maanaam nga xam ne ci lépp lu génnee ci aalamul amr mooy lu génnee ci kun directement maanaam ci kun la génnee Euh, lépp nag loo xamante ne ci aalamul xalq la maanaam loolu moom mooy loo xam ne dafa génne ci processus donte maanaam doomu aadama nag moom dafa am ñaar yooyu yëpp dañoo daje ci moom maanaam muy maam aadama d'abord alayhi salaatu wassalaam mais doomu aadama te loolu moo tax borom bi subhaanahu wa taala joxe exemple yent yàlla isa alayhi salaam ci borom bi subhaanahu wa taala naan inna masala isa inda allahi ka masali aadam xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fayakun naka yent yàlla isa salaam fa moom ak moom Adama alayhi salaam ñoo nuroo maanaam seen misaal benn la lan la daf koo bindee ci suuf après mu ne ko nekkal mu nekk voilà maanaam bi mu ko bindee ci suuf moom xalaqahu min turabin loolu mooy parti yaram bi mooy alamul xalq waaye topp mu ne ko nekkal mu nekk maanaam mooy ruux bi la wol ci moom comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci weneen wa nafaxtu fiihi min ruuhi ak yent yàlla isa alayhi salaam bi mu naan wa kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruuhun minhu kaddoom la gu mu sànni ci soxna maryama alayhi salaam te ruux la bu tukkee ci moom maanaam kon moo tax ñu naan ko isa ruuxullah maanaam alayhi salaam ñu naan ko sayyidina isa alayhi salaatu wassalaam ñu naan ko ruuxullah voilà voilà mooy ruuxu yàlla kon Euh, loolu moom euh, kon différenciation boobu am na gisoon nañ ko tamit ci ne xattaa ci malaaka yi loolu day am ci seen biir euh, ginnaaw nag maanaam mbir moomu lëkkaloo gi mu lëkkaloo ak ne lépp ci yenent bi sallallahu alayhi wa la jóge maanaam ne borom subhanahu wa ta'ala lépp lu mu amal ci da koo ci yenent bi sallallahu alayhi loolu moom maanaam xam-xam yu xóot a xóot la yoo xamante ne borom subhanahu wa moo koy xamal ku ko ci jaamam bi mu nekk loo xamante ne euh, akabiru aarifina yi ñoom ñoo gis nisba boobu maanaam askanonte boobu mbir yooyu yëpp askanonte maanaam ñoom gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna euh, léegi gisoon nañ ne ci suñ jotaay bi weesu ci jeexital gi waxoon nañ ne dinañu wax diggante xaaliq maanaam ak tur yi nga xamante ne daf leenoon dañ koo nuroo maanaam am na tur yoo xamante ne ñoom ak xaaliq dañoo nuroo euh, mais Euh, bu ñu waxee alxaaliq borom bi subhaanahu wa ta'aala su waxee alxaaliq maanaam euh, yooyu yëpp dañuy dugg ci biir maanaam yeneen tur yooyu yëpp dañuy dugg ci biir mais euh, su waxee benn ci yooyu itam maanaam yooyu yëpp dañuy yor maanaay xaaliq dañuy yor maanaa al xaaliq waaye suñu leen beree maanaam suñu leen boolee ci benn place ñu bokk fa nekk ndox dañuy daal di yor maanaay maanaam benn bu ci nekk day jël maanaawam maanaam loolu comme moom mooy al albirru ak at taqwa maanaam mbaax ak ragal yàlla borom bi su waxee mbaax maanaam ragal yàlla day duggaale ci biir ci maanaa bi bu waxee ragal yàlla mbaax day duggaale ci maanaa bi waaye su leen boolewee ci benn place maanaam mbaax day am maanaawam ragal yàlla am maanaawam naka noonu euh, suñu wax euh, euh, al imaan ngëm yàlla ak al islam mooy womatu ci yàlla ak al rafetal ak euh, ak euh, ak diinu diine yooyu yëpp bu ñu nekkee benn bu ci ne ñu ko tegee maam di bu naan diw dafa am diine ah wala boog képp koo xam ne borom diine nga nii nga war a mel wala ku ragal yàlla nii la war a wala ku gëm yàlla nii la war a mel wala ku am lislaam nii la war a mel ak yooyu yëpp maanaa benn buñ ci wax day yor maanaa yeneen yi ci des waaye suñ leen boolewee ci benn place waxandoo leen maanaam kenn ku ci nekk da ngay jël sa maanaay bopp comme euh, tamit al faqir ak al miskin faqir ak miskin ñoom ñaar tamit noonu lañ mel su fekkente dañoo tudd faqir kese maanaam faqir kese day daal di jëlaale maanaay miskin bu ñu waxee miskin kese day jëlaale maanaay faqiir waaye suñ leen boolee ci benn place maanaam faqir day yor maanaawam miskin yor maanaawam maanaam naka noonu tamit alhamdu ak ashukru sant ak ngërëm ñoo nuroo tamit maanaam bu ñu waxee cant kese ngërëm day duggaale ci biir bu ñu waxee ngërëm kese cant day duggaale ci biir waaye ñoom ñaar suñ leen boolewee ci benn place tuddandoo leen cant day jël maanaay boppam ngërëm jël maanaay boppam maanaam lool nag euh, ci alquran ak sunna lu bëree bari la euh, yii ay exemple la yoo xamante ne amaan na ñoo yi gën a feeñ yi gën a euh, bir te ñoo maanaam mooy yiñ teewlu nii rek mais ay maanaam maanaam mbir yu bëree bari ci alquran ak sunna dañu mel noonu Euh, kon xaaliq maanaam mooy turu yàlla boobu mooy aji bind ji buñ ko waxee yeneen yi ci des yëpp dañuy dugg ci biir mooy al badi'u mooy ci sos maanaam sos ci loo xamante ne amul ci fenn fu ko tàmbalee maanaam mooy al muxtari ala ghayri misalin sabiq mooy ki nga xam ne dafa sos mbir yi te amul ci exemple wala boog ci benn euh, plan boo xamante ne bu jiitu la bu mu ko jëlee daal di ko ci jàngee daal ko ci xamee loolu doomu aadama mënu ko maanaam doomu aadama lim man mooy lépp loo xamante ne daf koy defar rek faw mu am ci benn mbir boo xamante ne moom moo koy inspiré mu xam ne lii war naa mën a ne maanaam ba pare mu xam ne ndekete nii nii lañ ko war a defaree maanaam mu mu jël logique parce que dafa am lu préalable maanaam loo xam ne lu jiitu woon la lu mu jotoon a gis wala lu mu jotoon a dégg wala lu mu jot a euh, fekke wala yu mel noonu bu boobaa mu daal di koy mën a xam ne kat ah mbir mi kat ndekete nii lii boo ko defee nii war na laa mën a jox lii xelam doot ko yóbbu koo yóbbu ci loola yàlla nag moom melut noonu euh, kon ko loolu moom mooy al badi'u euh, al bari'u moom mooy al insha'u maanaam mooy al munshi'u mooy ci sos maanaam moom mooy jëlee mbir yi ci ñàkk am indi leen ci am moom mooy baraa maanaam mooy jële mbir ci ñàkk am rek indi ko ci am mooy kooku mooy al bari'u Euh, al musawwiru mi ngi jóge ci ab suura bi tekki form image maanaam moom mooy jox mbir yëpp comme euh, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum borom subhaanahu wa ta'aala ne moom moo leen jox forme bii ngeen am ba pare rafetal forme bi nga xamante ne moom ngeen amee maanaam kon mooy image bi nga am forme bi nga am loolu maanaam mbir mu ne borom subhaanahu moom moo ko jox forme bi mu amee loolu kon bu ñu waxee al musawwir mooy kii amal forme yi loolu lay tekki donte bu beroo moom kese day yor maanaay maanaay al xaaliq euh, ki nga xamante ne moom mooy maanaam bu boobaa ñoom ñii bu ñu tegaloowee bu boobaa xaaliq day yor day jël maanaam maanaam euh, ki nga xamante ne moom moo amal mbir yi jële leen ci xam-xamam moom borom subhaanahu wa indi leen ba jox leen forme bi ñu am bu boobaa albaari u day jël rek maanaam ki nga xamante ne moom moo leen jële ci ñàkk am indi leen ci am al musawwiru moom mooy ki nga xamante ne moom moo leen jox forme bi nga xamante ne moom lañ amee euh, mu des al fatir ñu ngi jóge ci fatara euh, moom mooy sos maanaam gisoon nañ ko bi ñuy wax ci wàllu fitra mooy nga xamante ne nii lañ la bindee nii lañ la bënnee ci cosaan noonu nga mel comme lii Seydina Abdullah ibn Abbas waxoon radiyallahu anhu ne man xaw ma woon baat boobu faatiris samaawaati wal ardi borom subhaanahu wa ta'aala bu doon mooy mooy ki sos ki fent voilà ki man xaw ma baatu fent boobu lan lay tekki mu ne ba ma gis benn kaw kaw bu ñëw ci jóge ci àll bi ñëw daal di jël ab tengaade maanaam xeetu tengaade ma laaj ko tengaade bi ku ko defar mu ne ana fatartu maanaam man maa ko fent maanaam ma daal di doog comprendre que ni ndekete loolu lay tekki comme ci beneen riwaaya tamit ni mu ko laaj gisee benn kaw-kaw mu wax ne teen teen bi mu ne ana fatartu man maa ko bënn maanaam mu gis ne ndekete fent mooy bënn maanaam mooy euh, borom subhaanahu wa ta'aala maanaam comme tey yow sooy bind dara wala sooy def dara faaw day am foo ko tàmbalee maanaam faaw mu am point de départ boo xamante ne moom ngay tàmbalee mbir mi loolu moom mooy maanaam le fait que nga koy jëlee ci point de départ boobu nga xam ne ci la mbir mi di tàmbalee maanaam xattaa booy bind dara wala loo mënti def faw mu am benn point boo xam ne ci ngay départ affaire yi a mën a jël forme beneen forme maanaam point de départ boobu le fait que nga koy sosee noona loolu moom mooy faatir maanaam borom subhaanahu wa ta'aala kon moom moom sos asamaan si suuf si ci point de départ bi nga xamante ne moom maanaam point boobu euh, densité bi dafa infini ànd ak ne maanaam euh, volume bi. dafa dafa dafa dafa dafa dafa nul maanaam volume bi presque dafa nul comme li mooy li li Friedman doon wax rek ginnaaw théorie relativité bi nga xamante ne wala boo principe de relativité bi nga xam ne moom la Einstein développé ah mu dellu si ci moom de développé ci maanaam li nga xamante ne moom mooy concept ne début univers bi noonu la tàmbalee maanaam ci point boo xamante ne maanaam mooy kii de euh, euh, euh, mooy masse masse maanaam loo xamante ne de volume zéro la de volume la maanaam mooy amul volume en réalité parce que volume zéro am maanaam amul tellement que amul maanaam mooy daf benn point la boo xamante ne dëgg-dëgg euh, euh, point bu nul la sauf que densité bi ci nekk maanaam moom moo moo énergie bi densité bi dafa illimité parce que moom moo tax une affaire bi di mën di tas euh, maanaam exploser di tasaaroo di tasaaroo di gën di yaatu di gën di yaatu comme ni nga xam ne noonu la ko Alxuraan di waxee te bi muy wax xalaqa la wax mu ne wa was samaa xalaqnaahaa bi aydin wa innaa la na asamaan si ñun ñoo ko bind ak kattan gu rëy waaye wa innaa te naka ñun yàlla la muusi'uuna giñ naa ne ñu koy yaatal saa su ne maanaam mooy l'univers est en perpétuelle expansion loolu lay tekki maanaam mi ngi yaatu saa euh, kon moom boroom subhaanahu wa moom mooy faatiru samaawaati wal moom mooy ki nga xamante ne moom moo sos bënn maanaam asamaan yi ak suuf si loolu tamit beneen secret da cee nekk moom mooy ne asamaan si ak suuf si yëpp maanaam dafa am ay bën-bën maanaam mooy lenn nekkul ci lu compact nii déedéet lépp dafa am bën-bën asamaan si ni ñu koy gisee nii comme ko waa jamono ji yëpp xamee mooy ni ñu koy gisee nii day nuru loo xamante ne benn miir la maanaam ñun bu ñuy xool asamaan si nii dañuy foog ne benn miir la maanaam bu tegu nii nuages yi dañoo dëgër et cetera alors que maanaam euh, dafa am ay bën-bën euh, moo tax. Euh, comme ni ko am alfaana wa taral wadqa yaxruju min xilaali maanaam nga gis ne euh, bu taw bi di wàcc maanaam da gis muy jaar maanaam muy muy jaar ci bën bën yi di wadd maanaam euh, ak grêle grêle yi ak neige yi maanaam bu ñuy wàcc noonu la ñuy wàccee yooyu yëpp kon day ne borom bi subhaanahu wa taala mboolem li nga xamante ne daf koo amal ci àdduna bi tamit daf koo wutal ay bën bën comme ni nga xam ne yaramu doomu aadama tamit maanaam ak yaramu mboolem yeneen euh, mboolem yeneen mbindeef yi maanaam noonu la ñu amee ay bën-bën maanaam euh, ay ay ay ay ay pores comme ni ñu koy waxee maanaam foo xamante ne ay bën-bën la euh, maanaam ñuy noyyi maanaam nga xamante ne voilà suuf si noonu la mel suuf si ni nga koy gisee nii ni mu mel nii waaye suuf si da ngay gis ne boo jëloon sa microscope léegi nga teg nga yaatal ko ba bu yaatoo yaatal léegi nga gis ne maanaam diggante maanaam pepp suuf yi dafa am espace yoo xamante ne ñoom ñoo ci ne ànd ak ne ci biti nii boo koy xool doo ko gis maanaam loolu def noonu bindee ko noonu kooku mooy alfatir maanaam kon da ngay gis ne euh, turu yàlla yi benn bu ci nekk ci yooyu noonu li ñuy nuroo nuroo nuroo ci zahir maanaam dañoo am loo xamante ne moom moo leen teqale euh, ci déjà maanaayu zahir yi déjà maanaam ci maanaayu zahir yi déjà yu feeñ yi ci baatin nag lool moom euh, beneen mbir la xaddis euh, wala xaraj maanaam beneen mbir la boo xamante ne moom euh, lu xóot la lu yaatu la loo xamante ne moom ñi nga xamante ne ñoom la ci borom subhaanahu wa taala ubbee ñoom mën nañ ci développer sans te te duñ du ñu du gaaw a noppi ci wax jooju kon borom subhaanahu wa kon moom mooy al waaye imam at-Tahawi euh, rahimahullahu taala fii mu ñuy jàngal muy muy wax benn mbir bu am solo te loolu muy pas-pasu ñi nga xam te ne ñoom ñooy waa ahlu sunnati wal jamaa mooy lan bi laa xaaja maanaam ci loo xamante ne amul aajo maanaam xaaja comme ni ko wolof di waxe moom aajo lay firi maanaam euh, maanaam mooy lan loo xamante ne euh, yitti la boo xam danaan man de manam day mën tek ñaari mbir manam mo yitte bo xamné manam mbir mo xamante ne day mën tek ñaari mbir bu njëkk bi mom moy al alxaaya manam moy lan moy wal al alxaaya wala bok al maqsad manam mom moy objectif objectif manam moy tay mané euh borom subhanahu wa taala dafa bind li nga xamantene mom moy Euh, mbindeef yi parce que objectif ci bind mbindeef yi nangam la maanaam loolu moo tax mu bind leen parce que loolu noonu ak njariñ la guy dellu si ci moom maanaam tey euh, tey nit ki comme li wolof yi di wax naan mag mag mag mag du fecc ci euh, ci ci lu amul dara wala wax ju mel noonu maanaam mag du tàccu ci ci ci maali forof maanaam mënoo yë du du def loo xamante ne euh, boo ko xoolee résultat bi maanaam bu war xoolee moom ci boppam maanaam ci jëmmam résultat bi final résultat final bi zéro la maanaam loolu mag du ko def maanaam mag mu am xel du ko def euh, donte loolu euh, maanaam lu ñuy nuancer la parce que bu ma naan mën nañ def lii te yàlla tax bu boobaa résultat final bi xaaruma ci résultat final bu àdduna maanaam bu teew waaye maa ngi ciy xaar résultat final boo xamante ne maanaam sama diggante ak sama borom la subhaanahu wa taala ngir moom mu kontaan maanaam ngir ne man dam damay sàkku gën koo jege wala damay sàkku ak mbégteem damay sàkku ak ngërëmam damay sàkku mbëggeelam kon loolu euh, maanaam mag mën naa mën naa mën naa tàccu ci lu mel noonu maanaam mën na yëngatu ci lu mel noonu waaye ci loo xamante ne moom dëgg-dëgg zéro zéro la boo ko xoolee résultat final bi maanaam amul benn njariñ ci moom ci lu teew du ci lu sori du ci diggante du ci wàllu àdduna du ci wàllu àllaaxira du ci wàllu mbir yi nga xamante ne moom moom lay yitte woon yi du ci wàllu diineem maanaam loolu moom mag mu am xel du ko def dëgg la loolu moom dëgg la mag mu am xel du def loolu léegi euh, kon borom bi subhaanahu wa maanaam fii daf lay wax ne la loolu noonu maanaam munuñu ko wax euh, yàlla mun loolu munul ak objectif boobu lu tax parce que yàlla dafa woomal comme ni mu ko waxee wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara yàlla moom ci boppam dafa woomal te yéen da ngeen aajowoo maanaam kon moom borom subhaanahu wa la du ne def ñoo bind parce que daf bu ñu bindul woon maanaam ñun dañuy am euh, dañuy am euh, soxla wala boog que bu ñu bindul woon ñun ñun ñun suñ bopp ñun ñooy soxla maanaam yàlla moom daf ñuy soxla. et que yu bari bari yoo xamante ne daf koy bëgg wala boog yenn natt yoo xamante ne daf koy bëgg xattaa ba benn mbir loolu lu mu tuuti tuuti kenn bu ko borom subhaanahu wa ta'ala bu ñu bindu toon euh, loola du mën a ne maanaam loolu mbir mi demee wut noonu euh, kon li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di di di bindee mbindeef fi maanaam li mu bindee mbindeef yi amul lenn loo xamante ne Ah, njariñ gi maanaam day daal di eh, dellu ci moom subhaanahu eh, wa ta'ala comme li nga xamante ne dinañ ko gis ci eh, bu ñuy tàmbale ci buy wax naan raziqun bila bila mu na beneen mbir bi nga xamante ne moom la moom lay jariñ maanaam loolu dinañ ci ñëwaat léegi maanaam ci yenent bi sallallahu alayhi wa bi muy doon wax naan maanaam wala ñu wax ko léegi sax xadis sayyidina Abu Zar bi la euh, radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne mi ngi ci saxiixu imam Muslim mi ngi tam ci sunan yi maanaam sunan imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko euh, rahmatullahi ala al-jamii kon euh, xadis sayyidina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu mu jële ci yenent bi sallallahu alayhi mu jële ci borom bi subhaanahu wa taala mu nekk xadisul qudsi mu ne yaa ibadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu mu ne ey yéen sama jaam yi man day dama xaraamal tooñ ci sama kaw bopp maanaam borom subhaanahu wa ta'aala euh, dafa jomb ci moom muy tooñ te loolu dinañ ci ñëw insha ne borom bi maanaam tooñ dafa jomb ci moom maanaam loolu mooy lan mooy euh, parce que tooñ moom mooy nga soppandikoo ci alali jàmbur wala bokk nga wàññi xàqu jàmbur maanaam nga jël ci àqu jàmbur euh, te loolu borom bi subhaanahu wa taala ko def lu tax ndax mbooleem li fi am moomeelam la kon moom soppandiku gi muy soppandiku ci mbir yi maanaam ci moomeelu boppam lay soppandiku naka noonu mboolem mbir yi nga xamante ne euh, moom lay Euh, def maanaam munul mbir mi mënta wëlbati koo neneen ba moom mu amel kenn àq kon ci kaw loolu tooñ moom man dafa jomb ci moom subhaanahu wa taala waaye terewul yéen li ngeen mën a wax ne ah kii kii de maanaam loo xam ne day wuuteeg li nga xam ne dëgg-dëgg maanaam maanaam kon moom mu ne kon man maa ko xaraamal sama bopp maanaam tooñ googu waaye dama koo def yéen seen diggante mu nekk lu xaraam wa jaaltuhu baynakum muharraman kon falaa tazalamu bu leen tooñante mu ne yaa ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum et eh, yéen sama jaam yi yéen ñëpp ñu sànku ngeen maanaam mooy da ngeen a réer xamoo leen dëgg-dëgg nan ngeen war a jaar ak lan moom moom mooy li nga xamante ne moom moo war a mën a tax ngeen tegu ci yoon bu baax bi ak lan moom moo war a tax ba seen mbir yëpp di sotti maanaam kon yéen ñëpp da ngeen a sànk ba mu des man maanaam koo xam ne man maa ko gindi kon nag laaj leen ma ma gindi leen bu ko defee ma gindi leen maanaam ngir jëlaat mbir yi delloo ko ci yàlla bu ko defee moom mu gindi ñu moom borom bi subhaanahu wa taala à travers alquran ak sunna bii nga xamante ne moom la wàcce waaye tamit mu am beneen hidaaya boo xam ne moom la ñu tuddee hidaayatu tawfiq parce que hidaaya bala hidaayatu dilaala la mooy ne yàlla gindi na ñëpp mi ngi ci alquran ak sunna loolu nag yërmandeem dong moo tax mu def ko waaye ne du ko war ndax su ko su ko neexoon noonu la ñuy bàyyi ku ñëw te meloo ni mu bëgg te bu wàcce woon ak alquran ak sunna maanaam nii comme ni mu ko defee nii li ci nekk ci ay recommandation li ci nekk ciy digle ak i tere képp ku ñëw te dëppwuloo ak loola mu daal di lay duma ne la parce que defuloo man li ma bëgg waaye yërmande moo tax mu daal di wàcc malgré loolu yëpp mu wàcc alxuraan ak sunna maanaam kon moo tax boo naan yàlla dafa bëri yërmande nangam nangam mais loolu limite ek effectivement yàlla dafa bëri ma yërmande yàlla dafa yaatu moo tax mu yebal ay yenentam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu wan ñu balaa muy balaa muy weesu balaa muy weesu mu wan ñu moom yàlla euh, lan la bëgg ak lan la bañ bañ teel koo xam bu ko defee bu ñu delloo ci moom du ñu fa nekk naan ko munuñu woon a xam li nga xam te ne moom nga ñëw moom nga bëgg ak moom nga bañ bu ko defee ñun buñ ko ko waxee du nekk lay abadan ci kawam parce que yàlla kenn mënta lay ci kawam ngir ne dafa woomal ñeneen ñi ñoom ñoo ko soxla moom mooy bilaa xaaja moom soxlawul kenn dara ñeneen ñi ñoo ko soxla waaye yërmande moo tax mu doxalee nii mu ne kon laaj la loolu mooy hidayatu dilala bi hidayatu tawfiq nag mooy malgré que alquran ak sunna mi ngi fi maanaam malgré que nit ñu bari bëri mën nañoo yamandoo ci degré information bi maanaam ñoom ñëpp am nañ information bi mais yàlla dëppalewul ñi am information bi yëpp yàlla dëppalewu leen seen xol dëppoo maanaam ci li nga xam ne moom la borom subhanahu wa ta'ala wàcce ci alxuraan ak sunna bañ mën koo jëfe ak mën cee taxaw na serait-ce que énergie bi war a nekk ci xolu doomu aadama bii tax muy di def lu bon loo xam ne xam ba tax muy mën a bàyyi lu bon xam ne xam na ni lii da yàlla bëgg ko wala muy def lii yàlla bëgg parce que tout simplement xam na ne yàlla daf ko bëgg ne serait énergie boobu nit ñu tolloowuñ ko maanaam kon mu ne kon laaj leen ma ma gindi leen ma gindi leen mu ne yaa ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat fastat'imuni ut'imkum yéen sama jaam yi yéen ñépp da ngeen a xiif ba mu des koo xam ne man leele naa ko képp koo xamante ne leele naa ko man maanaam mooy dundal naa ko kooku rek moo dul xiif kon nag ñaan leen ma man ma dundal leen ma leele leen bu ko defee ma leele leen yaa yi maanaam eh, maanaam maanaam bi maanaam zahir ak baatin maanaam mooy ñam bi nga xam ne mooy nourriture bi nga xam ne moom mooy bu bu zahir ah, mooy mbayee di bëgg ak beneen bi nga xamante ne moom mooy bu baatin bi mooy boobu mooy ñamu leer ñamu jub ñamu mbaax loolu yëpp bokk maanaam man maa koy joxe kon laaj leen ma ko maanaam nga gis ne fii lépp dañuy delluwaat mbir mi yëpp ci yàlla dong yàlla kese ndax mooy lan moom mooy xaalekun te fii moom mooy razikun maanaam da ngay gis lu tax imam al-Tahawi laa dëppale ñaari maanaam mu boole leen mu mu jegeñe leen mooy xaalekun bi laa xaaja razikun bi laa mu'na moom yàlla mooy kii bind te aajo woowu ko waaye mooy kiy wërsëgalaate te yokk du ci yokkat maanaam kon euh, di loolu maanaam lien bi xadiis bi daf koy leeral li tax imam at-Tahawi rahimahullah indi ko dinañ gis ne am na ay aaya alquran tamit yu koy leeral maanaam yu leeral lien bi ba tax imam at-Tahawi indi ko nii et que expression yi muy jëfandikoo daa iman day nekk expression yoo xamante ne dañoo bari ay sew-sew yoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk maanaam ay expression yu ñu tànn la maanaam ay baat la yu ñu tànn lenn lu ci nekk fañ ko teg lu ñu tànn la doon donte téere bi maanaam dafa gàtt dafa tuuti waaye euh, li nga xamante ne moo ci nekk maanaam lu rëy rëy la ci ay maanaa ak ni nga xam ne noonu lañ ko noonu la ko tegee mu ne kon na nga na ngeen ma ñaan ma ma ma dundal leen ma dundal leen mu ne yaa ibadi kullukum aarin illa man kasawtahu fastaksuuni aksukum te yéen sama jaam yéen ñëpp da ngeen a rafle ba mu des koo xam ne man maa ko sàng kon nag laaj leen ma ma sàng leen bu ko defee ma sàng leen maanaam mbir yi yëpp day nuru loo xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa naturel fekk ak a jafe yii yëpp dañoo jafe borom bi subhaanahu wa moo ñu ko yombalal moo tax mu mu yomb ñu waaye tey borom bi subhaanahu wa ta'aala su ko neexoon léegi coton lay def rek du amati leen yi mu dindi leneen leneen maanaam lu lekk mu daal di koy jafeñal léegi tey nit ñi duñu amati luñ sol borom bi subhaanahu mu ne maanaam lii mooy colug zahir gi am na colug baatin moom mooy leeru tur maanaam eh, jikko yu rafet yi ak melo yu sell yi mu ne yaa ibadi innakum tuxti'uuna bil layli wan nahaari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum ey yéen sama jaam yi yéen ñëpp di def njuumte ci guddi gi ak ci bëccëg gi maanaam guddi bëccëg ñoo ci yam nit ki li muy def ci njuumte par bés ay junni junni junni junni la ci li ëpp ci nit ñi ñi ci tane sax dinañ def ay njuumte daa maanaam ci ci lañ dëkk ci lañ dëkk te man yàlla maay jéggale bàkkaar yi mboolem seen ñoom ñëpp maa leen di jéggale kon ñaan leen ma man ma jéggal leen bu ko defee man ma jéggal leen maanaam nga gis ni kon lii yëpp day démontrer ni yàlla moom moom aajowoowul mindeefi mais mindeefi ñoom ñoo ko lan ñoom ñooko ko mu ne yaa ibaadi innakum lan tablughu darri fa tadurruni wa lan tablughu naf'i fa tanfa'uni maanaam euh, ginnaaw bi mu jëlee ay exemple fii nag muy leeral loo xamante ne lu am solo mu ne sama jaam maanaam xoolal waxin boobu subhaanallah maanaam waxinu yéen sama jaam yi maanaam di woo nit ñi di leen war ne yéen sama ay jaam ngeen euh, maanaam ngir ñeewante gi mu ñeewante jaam yi borom bi subhaanahu wa taala moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne yéen ñii de sama jaam yi na leen leer ni doo leen mën a jote mukk ci ngeen mën maa lor ba mënta ne maanaam yàlla mënoo ñu koo lor mënoo leen koo lor loolu mënta ne waaye tamit doo leen jote mukk ci di mbëgg maa jariñ ba jariñ ma loolu mënta ne maanaam yàlla gis nga maanaam tey exemple bi ñu doon jël ci euh, sama jeu vidéo bi nga xam ne moom laa defar maanaam personnage bi nekk ci jeu vidéo boobu maanaam bu ci amee kenn ku ca ne kooku maanaam ñoom ñëpp ñu nekk ci jeu vidéo bu ñu bëggoon bu ñu amoon yéene lor ma man duñ ko man naka noonu buñ amoon yéenee njariñ njariñ ma man ñoom ñii duñ ko man maanaam loolu dafa war a bokk ci suñu pas-pas lu tax parce que man dama indépendant ak ñoom maanaam dama dama dama maanaam ñoom amuñu luñ ma mën a jariñe amuñu luñ ma mën a lore tamit loolu mënta ne walillahi masal ala borom subhanahu wa ta'ala mboolem mbindeef yi mënuñu koo jariñ mënuñu koo lor ci lu tolloog euh atom manam zarra wala lu gëna tuti atom deng mune ya ibadi law an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zaada zalika fi mulki shay'a et yéen sama jaam yi bu fekkonte ne ñi njëkk ñi ci yéen maanaam ki njëkk ci yéen ak ki mujj ci yéen wala boog ñu njëkk ñi ci yéen ak ñi mujj ñi ci yéen ak seen ay nit ak seen ay jinne ñoom ñëpp buñ leen boole dañoo nekkoon dañoo nekk ci ki gën ragal yàlla maanaam xolam xolu kenn ku nekk ci yéen mel ni xolu ki gën a ragal yàlla ci góor ñi ci kenn ci yéen maanaam moo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nit ñëpp mbindeef yëpp nit ñi ginne yi ñu njëkk ñu mujj ñépp bu ñu bokkoon baax ni yenent bi baaxe sallallahu alayhi wa borom bi déglul li mu wax nee na ma zaada zalika ala mulki shay'a loolu du yokk ci sama nguur gi dara loolu du yokk ci sama nguur gi dara subhaanallah gis nga exemple bi euh, nu mu tudd personnage yi nekk sama jeu vidéo yi ñoom ñëpp bu ñu baaxee man lan lañ may yokk man maanaam bu ma leen defaree ñoom ñëpp ñu baax man yo loolu yokku ma dara mu ne yaa ibadi law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika fi mulki shay'a e yéen sama jaame bu doon jin seen nit yi seen ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi ak seen jinne yi ak seen nit ñi seen nit ñi ak seen jinne yi dañoo nekk ci ci gën a kàccoor ci xol ci gën a kàccoor ci nit ñi ci xolam muy dajjal par exemple wala Yaajuuj ak Maajuuj ñoom niñ mel wala Abu Jahl maanaam ñooñu ñu mel noonu ci gën a kàccoor ci nit ñi mu ne loolu du wàññi sama nguur gi dara maanaam loolu du wàññi sama nguur gi dara maanaam mooy comme sama jeu vidéo bi rek ñi ci nekk ñëpp bu nekkee ay saay-saay man loolu mënu maa wàññi dara man mi man man mi man mi defar si vidéo bi mënu maa wàññi dara mu yaa ibaadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر من ين سما جامي sudon ñu jikki ñi ci yeen ak ñu mujju ñi ñoom dañoo taxawoon ci benn pàkk ñoom ñëpp ñu daal di may laaj man ma jox leen ma jox nit ku ne maanaam kon ak jinne bu ne la mu laaj ku nekk nag la mu laaj lu mu rëy rëy loolu du wàññi ci li ne fi man lu dul comme ni nga xamante ne tey maanaam su ma jëloon euh, su ma jëloon euh, euh, puso ma teg maanaam ma ma samp ko ci géej gi génne ko la takk ci puso boobu loolu doo nga lay tollool ci sama moomeel maanaam ci géej gi loolu lay tollool te loolu exemple la ngir mu mën a jegeñal xelu doomu aadama yi maanaam loolu wax di li muy tekki mooy du wàññi dara te gis nga euh, bu ma ko jëloon tey sama exemple jeu vidéo boobu maanaam maanaam man tey ñi nekk personnage yi nekk sama jeu vidéo yëpp kenn ku ci nekk tey mu fas koo yéenee defal ay kër yu dul jeex moo fas koo yéenee jox alal yu dul jeex ak yooyu ay kot rek laay def maanaam man loolu du wàññi sama moomel dara ay code xam nga code kefe laay defar maanaam mooy dama ko programmer rek di ko programmer ci ordinateur bi rek di programmer rek loolu jotul loolu mënu ma wàññi dara maanaam du wàññi ci sama moomel dara. يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه yéen sama jaam yi lii daal seen ay jëf la ay jëf la yoo xamante dama koy dama leen koy teegal topp ma matalal leen ko ci pay gi ma matalal leen ko képp koo xamante ne daj na yiw daj na lu baax na sant yàlla képp koo xamante ne nag daj na leneen lu dul loola bu mu ŋàññ lu dul boppam maanaam xadiis bi euh, xadis bu bu yéeme la bu ama am solo la ah euh, boo xamante ne day leeral ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam nit ñi maanaam moom soxlawul mbindeef yi maanaam kon le fait que mbindeef yi moom mu bind leen loolu moom borom bi subhaanahu wa taala yokk ko dara waaye wàññiwu ko dara te loolu moom mooy ñun li nga xamante ne moom lañ mën a gëm ci yàlla bi nga xamante ne ñun moom la ñuy jaamu beneen mbir bi nga xamante ne moom la bilaa xaaja di tekki maanaam mooy borom bi subhaanahu wa taala maanaam moom du ne danaan naa bind mbindee fi ngir ne su ma leen bindee loolu day wane ne man mi yàlla maanaam ngir sama mat maanaam gën mat maanaam damay soxla di bind pour maanaam man ma gën a mat déedéet maanaam man sama compétence que defar naa jeu vidéo bi wala defaruma ko maanaam loolu aajowoo ma defar jeu vidéo bi pour mën a nekk maanaam man ingénieur bu mat maanaam soxlawuma ko pour ma mën a nekk informaticien bu aay maanaam soxlawuma defar jeu vidéo bii nii pour mën ko def maanaam te le fait que rek man ma melowoo loola maanaam mën naa koo melowoo ba ba may dee te du ma mës a defar te du ma mës a defar jeu vidéo te terewul compétence yooyu mi ngeeg man maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala c'est pas parce que dafa bind mbindeef yi que ni dafa nekk alxaaliq que ni dafa mat déedéet maanaam moom munoon na fee nekk mu nekk fi daa iman te du du te te te du bind mbindeef yi beneen bi des tamit moom mooy ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala bind bi mu bind mbindeef yi du ne ñoom maanaam dañoo dañoo obligé génn maanaam dañoo obligé mu bind leen te loolu leeraloon nañ ko ci jotaay bi weesu ne borom bi subhaanahu wa ta'ala obligé wul woon bind mbindeef léegi imam at-Tahawi rahimahullahu taala daa di ci teg ne euh, raziqun bila mu'na maanaam kon gis nañ ni euh, xaaliqun bila xaaja mooy moom moo bind te amul aajo aajo boobu gis nañ ne ñaar la aajo bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne ci boppam la aju maanaam moom moom moo maanaam du il faut que mu def ko pour moom mu mën a mat déedéet waaye tamit du ne daf koo def maanaam mooy ñaaral bi ne parce que mbindeef bu leen bindee ñoom mbindeef yi ñoom Euh, dafa am ñoom luñ koy jariñ maanaam njariñ koo xam ne day tukkee ci mbindeef yi di ñëw ci ñoom loolu tamit taxul mu bind leen kon maanaam ñaari yëpp benn taxul ñu ñu mu bind leen maanaam kon léegi laaj boobu mooy laaj bi bi bi rot mooy kon war lan moo war a tax mu bind leen maanaam parce que su fekkente jariñu ko dara ci benn côté lan moo war a tax mu bind leen maanaam tontu bi moom mooy ñoom ñoo war a jariñoo ci yàlla moo tax mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma doomu aadama yi maanaam jinne yi ak doomu aadama yi lu dul ngir ñu jaamu ma maanaam ñu jaamu ma maanaam moom mooy seenu jaamu man loolooy tax ñoom ñu xam ma moo tax sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma daan ne illaa li lay tekk maanaam lu dul ngir ñu xam ma maanaam mooy lan mooy borom bi subhaanahu wa na fi ne maanaam exister moom kese du bind dara te loolu wàññiwul ci existence am dara wàññiwul ci matam dara ci matam guñ jooyal bi waaye le fait mu bind yeneen mbindeef yi loolu day indi ci ci loolu day indi ci ci moom borom bi maanaam maanaam ci ci mbindeef yi day tax ba mbindeef yi ñoom ñu xam yàlla ñoom ñuy mën a jariñoo ci borom subhaanahu wa di jariñoo ci ay turam ak ay meloom borom subhaanahu wa di leen defal ay xéewal ñuy gis ne ndekete borom bi subhaanahu wa maanaam ñuy gis manifestation wu maanaam feeñu waayu turóom yi moom yàlla borom bi subhaanahu wa taala ak ay meloom kon maanaam ñoom ñooy ciy jariñu waaye moom borom bi subhaanahu wa taala du ci jariñu loolu moom moo tax mu daal di ciy teg ne maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imuna inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil man nam mooma ci ñoom ñu di ma wërsëgal nammuma ci ñoom ñu di ma leele di ma dundal di ma yokk dara parce que moom borom bi subhaanahu wa ta'ala soxlawul nourriture maanaam soxlawul ak dund maanaam ak ak ak dund maanaam dund dans le mën a dundal naka noonu soxlawul wërsëg bu tukkee ci mbindeef yi moom buur yàlla sax subhaanahu wa ta'ala moom mooy ar-razzaq mooy borom wërsëg bu kawe bu rëy bi ki nga xam ne dafa bëri lu muy wërsëgalaate bëri noonu ñu muy wërsëgalaate moo tax mu jëf ni ko ar-Razzaq zul quwwa moom mooy ki nga xamante ne moom mooy boroom kattan ah moom mooy ki nga xamante ne al mooy ki dëgër ci nga te ne daf fee sax nekk nekk woo xamante ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam te sax wi subhaanahu wa taala euh, kon loolu ci la ñuy duggee ci kon borom bi subhaanahu naan euh, raziqun maanaam mooy aju wërsëgalaate Euh, wërsëgalaate nag maanaam moom mooy ki nga xam ne mooy ar maanaam day nekk d'abord ki nga xamante ne moom mooy al-Wahib mooy al-Wahhab mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax ñu di leen boole ñoom ñaar mooy al-Wahhab ak ar-Razzaq ñu lëkkale leen ci bu ñuy lim turu yàlla yi ndax al-Wahhab mooy ki nga xamante ne moom moo waajalal qawaabil yi maanaam mooy euh, prédisposition wu mbindeef yi maanaam loo xamante ne dañ naan ah lii kii kat borom subhaanahu wa ta'aala dakaa waajalal nangam ngir mën koo jox nangam di ko may nangam may yooyu nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala waajalal mbindeef yi ba pare defal leen ko ci seen i jëmm defal ko ci seen ay melo defal leen ko ci yi ñuy soxla ngir mën fee ba pare defal leen ko tamit kenn ku ci nekk mu may la ko ci anam goo xamante ne kenn munu koo may boppam loolu moom moo tax foo gisee borom subhaanahu wa ta'aala ci alquran baatu wahab wala wala habli maanaam habli mooy may ma wala hablana mooy may ñu euh, maanaam jox ñu wala wahaba ah may na ma alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa ak euh, maam yu mel noonu wa hablana min ladunka rahma ak yeneen ak yeneen rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ak yooyu yëpp maanaam mbir la moo xamante ne kenn mënu koo defal boppam maanaam mbir la yu am njariñ yu rëy mais kenn mënu koo defal boppam te buñ ko xoolee comme wa hab lanaa min ladunka rahma mooy may ñu yërmande gu tukkee ci yow yërmande yàlla kenn mënu koo may boppam yàlla moo la koy may te lu rëy la te lu la comme par exemple euh, fa hab lii min ladunka waliya yent yàlla Zakariya alayhi salaam bi muy ñaan doom daf ne yàlla may ma hab lii la wax ak alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa maa ngi sant ñeel aji sax la ñeel buur yàlla mi nga xam ne moo ma may ànd ak ne màgget laa màgget laa mooma may Seydina Ibra eh, Ismaïla ak Seydina Isxaqa alayhima salaatu wassalaam maanaam loolu la maam Ibrahima alayhi salaam wax maanaam yooyu tamit maanaam lu tax parce que am doom moo tax rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina yàlla may ñu ci suñu jabaree suñu jëkkër yi ah ak suñu njaboot yi qurrata a'yun ñoo xam ne dañuy sedd ñu bët maanaam kon mooy ñoo xamante ne maanaam mooy kon may ñu loolu parce lu tax parce que loolu li muy rëy rëy nekk xéewal lépp maanaam yàlla moo koy mayee kenn mënu koo indil sa bopp maanaam kooku euh, mooy borom subhaanahu wa ta'ala kon dafa jël prédisposition yi mu teg ko ba nga xamante ne ci namm namm borom bi subhaanahu wa ta'ala ci la ko defarale maanaam moo tax mbind mi ci namm nammam la amee mooy al xaaliq maanaam moom mooy ci namm nammam moom borom bi wa ta'ala am na sañ-sañ ak kattan ci mën a bind lu mu bëgg a bind te aaju woowu ko loolu mooy xaaliqun bi la xaaja raafiqul moom mooy am na ci namm-nammam ak sañ-sañam am na kàttan ci mën a wërsëgal ku ko neex lu ko neex maanaam bu boobaa nag wërsëg moom mooy ginnaaw bi mu la defalee prédisposition nga mën a jot may yi léegi nag le fait mu lay sottil ay xéewal maanaam di la defaral lool moom moo tudd wërsëg euh, kon euh, loolu moom moo tax wërsëg yi dañuy wuute ñu tolloo lu tax parce que prédisposition yi maanaam may yi ñoo wuute maanaam ku la ëpp ay may moo lay ëpp wërsëg maanaam ku la ëpp may yi maam yi la yi ko borom subhaanahu wa ta'aala defalal rek moom moo lay ëpp wërsëg lu tax parce que may yi moom mooy mooy teg prédisposition yi léegi nag wërsëg gi moom mooy li nga xam te ne moom moo ci ne comme tey maanaam buñ naan may yi moom mooy ndab li wërsëg gi moom mooy li nga xam te ne moom lañuy ñuy duy ci ndab li euh, kon Euh, borom bi kon subhaanahu wa taala muy muy leeral ne euh, maanaam lëkkale bu ñu xoolee léegi lii de maanaam gis nañu ci xadiis na Abu Zar bi ñu romb léegi radiyallahu anhu lan moo tax imaam at-Tahawi rahimahullah lëkkale leen waaye dañuy gis tey aaya alquran yu koy leeral maanaam gis nañ aaya alquran bi nga xamante ne moom mooy bi nekk ci sourate Zariyat bi ñu tudd léegi yaa mooy bi mu naan ah euh, naan wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imuna inna allaha huwa an yut'imuna inna allaha huwa ar-razzaqu dhu matin maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ne binduma jinne ak doomu aadama lu dul ñu jaamu wax nañ la ne ñu dul ñu jaamu ma maanaam mooy jaamu googu noonu maanaam mbindeef yi lay jariñ mbindeef yi ñoom ñoo am intérêt ci jaamu yàlla ñoo am intérêt ci xam kan mooy yàlla ah, et que borom subhaanahu wa ta'ala du dañ di leen feeñu ci wërsëg yi mu leen di wërsëgalal ci zahir ak ci baatin euh, naka noonu yàlla ne moom nammul ci loolu ñu dundal ko wërsëgal ko waaye moom ci boppam moom mooy ki nga xam ne mooy wërsëgalaate euh, borom subhaanahu wa ta'ala tamit mi ngi wax ci suuratul Faatir bi muy wax moom mi nga xam ne moo bind asamaan yi ak suuf si. Euh, maanaam moom moo bind asamaan yi ak suuf si ba pare moo def malaaka yi ñu nekk ay yenent alhamdulilah fatir samawati wal ardi ja'alal malaikati rusulan maanaam moo leen yabal uli ajnihatin di boroomi laaf masna wa sulasa wa rubaa maanaam ñi am ñaar ñi am ñett ñi am ñeenti laaf waaye mu ne yazidu fil xalqi ma yasha'u mooy yokk ci mbindeef bi lu mi lu ko neex maanaam kon nga gis ne malaaka yi seenu mbind noonu la demee maanaam nga gis ne ba tey mi ngi wax ci wàllu mbind mi kon faatiri la tàmbalee waaye mi ngi naan yazidu fil xalqi maanaam dina yokk ci mbind mi lu ko sob maanaam muy wane liñ doon wax léegi ci ne maanaam maanaay baat yooyu dañuy dañuy jël kenn ku ci nekk maanaay moroomam mu tekki ne inna allaha ala kulli shay'in qadir inna allaha naka buur yàlla bu dul dara du dara itam qadirun ko am sañ-sañ la ak kattan ala kulli shay'in ci bépp mbir mu ne maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsiku falaa la lahu lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim lépp loo xamante ne moom boroom subhaanahu wa ta'aala ubbil na ko ñeel nit ñi ci yërmandeem amul kenn ku ko mën a téye moo même da xool Wahhab Razzaq maanaam ñoom ñii la ñu tegale maanaam lépp képp lu yàlla ubbi ci yërmandeem amul ku ko mën a téye waaye lépp lu mu téye amul kenn ku ko mën a yoor mbindeef yi ginnaawam moom mooy ki noot ci nguuram ak am maanaam ba pare mooy ki nga xamante ne mooy ki xereñ ay te xereñ waaye lii moo taxoon ni koy indi mooy aaya bii ci tegu mooy yaa ayyuhan naasu uzkuru ni'matallahi alaykum hal min xaaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardi laa ilaha huwa fa annaa tu'fakuun ey eh, nit ñi fàttaliku leen xéewal ki nga xamante ne moom la buur yàlla subhaanahu moom la leen defal est am na kenn ndax am na hal min xaaliqin ndax am na kenn kuy aji bind rek gayrullahi koo xam ne moom bokkut ak yàlla la est am na ñoo xam ne yàlla moom mooy kii bind waaye moom yarzuqukum mooy da daf cee boole non seulement moom rek moo leen di bind waaye moom moo leen di wërsëgal mina samaa'i du tukkee ci asamaan si wala ardi ak suuf si maanaam kon ñu gis ne wërsëg day tukkee ci asamaan naka noonu day tukkee ci suuf si comme ne donc comme ni nga xamante ne lu euh, bëree bëri maanaam dañoo jàpp ne rek euh, wërsëg ci asamaan si rek lay jóge comme ni ko Alxuraan waxee wa fi samaa'i rizqukum wa maa tu'aduun ci asamaan si seen wërsëg mu ngi fa waaye loolu moom mooy ne ndogal gi ci kaw lay jóge ndax lan yu dabbirul amra minas samaa'i ilal ard day day day day day day day moom borom subhaanahu day soppandiku ci mbir yi maanaam mooy day administrer mbir yi lu tukkee ci asamaan mu wàcc suuf. waaye nag loolu tegtalewul ne ci asamaan si rek la wërsëg bi di jóge waaye wërsëg bi maanaam am na ñoo xam ne seen wërsëg ci asamaan si la ne am ñoo xam ne seen wërsëg ci suuf si la xam ne seen wërsëg ci ñaar yëpp la ne wërsëg yi tamit yu zahir yi ak yu baate nii yenn yi dañuy tukkee ci asamaan yenn yi tukkee ci suuf ànd ak ne borom bi subhaanahu wa taala li gën a yéeme comme al imam ibn Ata'illah wax as-Sakandari rahimahullah mu ne euh, euh, ci Euh, euh, euh, at-tanwiir fi isqaat at mu ne dafa am loo xamante ne maanaam borom subhaanahu wa bi muy bindu wërsëg yi wërsëg yi borom subhaanahu wa te loolu sax bon ay ay alxuraan leeral wax ji dafa dafa dafa dafa dafa dafa tënk rek maanaam mooy borom subhaanahu wa taala bi muy bind wërsëg yi dafa bind wërsëgu zahiri ak wërsëgu baatini wërsëgu zahiri tey tey par exemple moom mooy wér gu yaram. am lo lek am lo nan am euh am fo dëkk di noy am manam ak yu mel noonu yoy ay wërsëgu zahir lañ wërsëgu batin nak moy ngëm yalla ragal yalla di wëru ci yàlla toroxlu ci yalla bëgg yalla bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg nit ñu bax ni bëgg lu bax bañ lu bon di ngir yalla di mer tamit ngir yalla ah di di di di bëgg ngir yàlla di bañ tamit ngir yàlla ak yeneen ak yeneen yooyu ñooy wërsëgu yi nga xam te ne ñoom ñooy yu baati ni xam-xam boo xam te ne dafa tukkee ci yàlla voilà wërsëgu zahiri xam-xamu àdduna ak yu mel noonu waaye wërsëgu baatin mooy xam-xam boo xam ne dalay lay jegelew yàlla ak yooyu mu ne borom subhanahu wa ta'ala ni mu wuutalee nit ñi ci wërsëgu zahir noonu la leen wuutalee ci wërsëgu baatin noonu la leen ci wërsëgu baatin waaye wërsëg bi nga xamante ne moom mooy wërsëgu baatin yi ñoom la njëkk séddale laataa muy séddale wërsëgu zahiri kon moom borom subhaanahu wa moom mooy ki nga xamante ne kon mooy wërsëgalaate euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko euh, waxee ci bim naan ci suratul ci suratul sajda euh moy mu naan wa asbaxa alaykum ni'amahu zahiratan wa batina euh moom boroom subhaanahu wa ta'aala wala bok ci ci sourate Luqman plutôt alam tar alam taraw anna allaha sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina mune xana xanaa gisoo leen ni bur yàlla subhanahu wa ta'ala mo len tagatalal mbolam li nek ci asaman yi ak suuf ba pare mom mo sëmbërtal ba pare matalal ci yéen ay xéewalam yu zahir yu nëbb wa batina ak yu feñi manam kon borom subhanahu wa ta'ala mbolam xéewal yi mom moñu ko defal am leen xéewalu zahir tamit léeg mbir day nekk xéewal nekk wërsëg gu rëy te nit ñi duñ ko gis mooy mooy yu zahir yi mooy yi nga xamante ne moom mooy yi nit ñi jàpp ne dafa positif mooy wér gu yaram alal euh, dundu euh, njaboot ak yu mel noonu alors que yu nëbbatu yi nag moom mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nga xam ne nit ñi buñ ko gisee ci biti nii dañuy gis ne lii day du xéewal lii day musiba la lii day nangam la maanaam mooy comme lu demee nekk feebar lu demee nekk ñàkk lu demee nekk ak yeneen ak yeneen borom subhaanahu wa su ko defee nit ki maanaam loolu tax mu gën a toroxlu ci yàlla delluwaat ci yàlla loolu boobaa xéewal lay doon yoo xamante ne mais xéewal googu xéewalu baatin la ndax borom subhaanahu wa ta'aala dana fay kii nit kooku ci comportement bi muy am par rapport ak nattu boobu ko yàlla nattu maanaam mu am ci comportement boo xamante ne loolu moom mooy ne mooy ak texem àdduna ak àllaaxira te loolu moom mooy tax mu gën a jege buur yàlla borom bi euh, subhaanahu euh, kon moom borom bi subhaanahu wa moom mooy raziq kon moom mooy euh, wërsëgalaate borom bi nag subhaanahu wa ta'ala turu raziq ci alquran buñ ko xoolee maanaam lii tam mu nekk beneen beneen mbir boo xamante ne Euh, bu ama am solo la boo xamante ne daf ci euh, day day day leeral lu bari ne borom subhaanahu wa taala tudd na xayru raziqina maanaam borom subhaanahu wa wax na ne maam ci làmminu yonent Yàlla Isaa alayhi salaam mu ne ko mu ne warzuqnaa wa anta xayru raziqina wërsëgal ñu te yow borom subhaanahu wa taala yow yaay xayru na yow yaay ki gën ci ñi euh, ci ñi wërsëgalaate mu wax tamit ne di tudd ñeneen mu ne walladina haajaru fi sabilillahi summa qutilu aw maatu la yarzuqannahum allahu rizqan hasanan wa inna allaha la huwa xayru raziqina mu ne naka ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gàddaay ci yoonu yàlla topp ñu rey leen wala boog ñu dee fekk dañoo gàddaayan dem ci yoonu yàlla mu ne ñooñu noonu yàlla giñ na ni deen dana leen wërsëgalal wërsëg gu rafet loolu tamit day wane ne wërsëg gu ñaaw am na maanaam te loolu beneen mbir la boo xamante ne waa ahlu sunnati wal jamaa dañ cee wuuteeg mu'tazila yi ndax mu'tazila yi ñoom dañoo jàpp ne wërsëg lu baax rek la mën a doon maanaam ñoom lan lañ jàpp moom mooy tey euh, nit ki nga xamante ne tey par exemple dafa am mbaam xuux pour ñoom mbaam xuux du wërsëg maanaam ñoom dañoo jàpp ne nit ki nga xamante ne dafa yor dafa am ay xaj pour ñoom loolu du wërsëg ndox dafa xaram euh, nga nga nga nga nga nga nga di ko moom ba mu def bien sûr maanaam ci li nga xamante ne moom mooy ci yi ñu ko euh, yi ñu ko permettre euh, wala ñoom dañoo jàpp ne kii lekk médd maanaam te nekkul ci lor mais muy lekk médd wala boog muy lekk riba wala boog muy naan sàngara loolu noonu muy dundee loolu tuddul wërsëg maanaam mu'tazila yi loolu lañ jàpp waa ahlu sunna nag wal jamaa ñoom dañoo jàpp ne ahankay loolu wërsëg la sauf que wërsëg mooy lépp lu tukkee ci yàlla loo xamante ne xéewal la mu ñëw ci mbindeef yi waaye wërsëg day baax wala mu bon maanaam ñoom loolu tamit point la boo xam ne waa ahlu sunna wal jamaa dañ ko wuute ak mu'tazila yi euh, moo tax nga gis ne ñoom bu ñuy ñaan wala maam yent yàlla Isa alayhi salaam bi mu doon ñaan mu ñaan borom bi subhaanahu wa taala ba pare daan ni ko yow yaay xayru na ki gën ci ñuy wërsëgalaate te dafa bokk ci li nga xamante ne moom la euh, maanaam Mu'tazila yi lu ñu lu ñu wax foofu mais wërsëg maanaam lu positif rek la mën a doon loolu bokk na ci li ko waa ahlu sunnati wal jamaa di di dàqee mooy maanaam aaya bu mel nii mooy rizqan hasanan ak li yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan képp koo xamante ne dangaa ngaa ñëw ci man ba jël alalu jàmbur jox la ko maanaam buñ demee ci kanamu yàlla maanaam xam nga wërsëg la waaye buñ demee ci kanamu yàlla yàlla maanaam euh, dana la ko yan ci juróom-ñaari asamaan maanaam ñoo ci juróom-ñaari suuf si maanaam na ko doonu tamit képp koo xam ne loolu tamit mu nekk kon wërsëg maanaam xeetu wërsëg euh, loolu moom moo tax Euh, aarif billah yi di wax wax ju am solo ku mel ni Imaam Ash-Sha'rani euh, ci téere bu mel ne la Waaqiful Anwaar al-Qudsiyya dafa wax ju am solo euh, rahimahullah mu ne radiyallahu anhu mu ne nañ bàyyi xel benn mbir aarif billah mu ne ñenn ñi foofu lañuy ñuy juumee ñenn ñi dañuy am maarifa maanaam dañuy xam dañuy xàmmee ci yàlla borom subhaanahu wa mais nag dañuy juum juum gu rëy rëy njuumte gu rëy rëy ci benn point mooy lan mooy le fait ñuy gis ne lépp ci yàlla lay jóge maanaam lépp wërsëg lépp wërsëg yépp ci yàlla lay jóge maanaam ñoom lool dañ koy dañ koy seede ci seen xol maanaam dañ koy gis waaye loolu da leen di dugal ci ci geneen njuumte moo tax ñoom ñu segg diggante li baax ak li bon maanaam ñoom xaqiqa bi rek lañuy gis mooy réalité mbir mi mooy lan mooy ne lépp ci yàlla la jóge waaye du ñu xool mbir mi ci bëtu sharia bi te loolu nag lu mat a bàyyi xel la mooy lan ànd tey riba alalu wala alal ju bon wala euh, masalan ñam boo xamante ne medd la wala yu mel noonu yooyu yëpp boo ñëwee ci yow yàlla moo la ko jottali waaye nag borom subhaanahu wa ta'aala lépp lu la jox rek na nga ko jël maanaam dani bu fekkente ne lii ma la jox ci sama bëtu ci buntu xaqiqa sharia ànd na ci bu boobaa na nga ko jël bu ci sharia àndul na nga ko bàyyi ndax loolu muy si jëmmi musiba moo tax nga gis ci xadiis bi nga xamante ne euh, moom la ñu euh, romboon euh, léegi borom subhaanahu wa danne danne fa man wajada xayran fal yahmadillaha ku daj lu baax boobaa na sant yàlla waaye wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa sax ku daj nag loo xamante ne wuute nag loola bu mu ŋàññ lu dul boppam maanaam kon nga gis ne euh, loolu lu ama am solo la léegi nga gis ne borom subhanahu wa ta'ala ne wa inna allaha la huwa xayru raziqin naka buur yàlla ne moom mooy ki nga xam ne mooy ki gën ji euh, kii euh, wërsëgalaate mu daal di wax tamit euh, ci euh, suratul mu'minuna mu ne wa huwa xayru raziqina moom buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy ki gën ci ñi wërsëgalaate mu wax ci suratul saba bi mu naan qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yakhlifuhu wa huwa xayru raziqina mu jëfandikoo tamit wax wa xayru raziqina maanaam waxal ne sama borom subhaanahu wa moom mooy yaatalal wërsëg yi ñeel ku ko soob ci jaamam yi ba pare moom moo koy xatal ku ko neex moo koy xomp xatalal ku ko neex kon lépp loo xamante ne dangeen ngeen koy jël di ko dugal ci yoon woo xamante ne wu baax la ak loola lu mu mën a doon maanaam mooy ci lu baax ci kanaal bu baax moom yàlla dana leen ko wuutalal comme ni hadith bi wax ne bis bu jot daa am malaaka buy xëy ñaari malaaka dañuy xëy kenn ki naan ah, allahumma aati kulla munfiqin xalafan beneen bi malaaka bi naan allahumma aati kulla mumsikin talafan maanaam malaaka bi naan ah yàlla képp koo xam ne dangay jël sa alal ji daal di ci joxe te yee maanaam di ko jaarale ci yoon bu di ko dépenser ci lu baax yàlla yàlla na ko wutalal lu ko wuutu mooy comme aaya bi la mu wax waaye képp koo xam ne daf koy téye day téye alalam neena na du ci du ko dugal sur sur canal yi baaxee maanaam ngir alal ji mën di daw ci àdduna bi nit ñi di ci mën di jariñu ñi nga xam ne ñooy ñi ñàkk di mën a am fu ñuy dàqee seen wërsëg ak yu mel noonu su fekkente ne dañ ne maanaam yàlla ki nit ki buy téye yàlla na ko na ko na na na nga ko na nga ko defal perte maanaam alal ji maanaam na koy rënk rek mu nekk mu bañ mu nekk lu lu muy perte voilà te mom yàlla kon wa huwa xayru raziqina mooy ki gën ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wërsëgalaate ci suratul jumu'ah ci jeexital bi mi ngi non wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan in infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda allahi xayrun min allahi wa min at-tijarati wallahu xayru raziqin Euh, bon du ñu wax euh, ki pa ci beneen bi rek mooy qul ma indallahi xayrun min allahi wa min at waxal ne li nekk fa yàlla maanaam mooy ajjuma ajjuma la mu ne suñu gisee gars yi buñu gisee lu ñu yaxantoo mooy commerce lu ñu jaay ak jënd wala boog ay mbóosóor fo am na mat am na lii euh, dama maanaam xew-xew yi dafa am meeting dafa am leneen leneen ñoom ñu préféré bàyyi la yow nga nekk ci jumaa ji taxaw ci di xutba wala ngay jaamu yàlla maanaam mën nañ dugalaale maanaam boobu maanaam yow daal nga nekk ci lu baax ñoom ñu nangu la fee bàyyi dem ñoom ci seen commerce bi ak seen mbóosóor bi jàpp nañ ne loolu da leen di jariñ borom subhaanahu wa ta'aala ne leen yow da wax gaa yi ne leen li nekk fa yàlla moo gën fuuf mi mboosóor yi mooy match yi ngeen war a seetaane ji léeg am na ñoo xam ne nag bu match amee rek duñ ci bu coupe du monde match am seen équipe di jouer duñu duñu duñu dem juma wala boog maanaam comme ni ñu ko doon gisee ci yenn euh, match yi comme deux mille deux ni mu doon demee nga xamante ne ñenn ñi sax dégg nga dañ daan maanaam soit duñ dem juma wala bu ñu demee daanaka duñu xaw a sëlmal wala dañu bàyyi imam bi xutba parce que dañoo war a seetaane ñu match bi dañu bañ première bi bi rëcc la wala yu mel noonu maanaam ay mbir yoo xamante ne yu yéeme la borom subhaanahu wa ta'aala leen yooyu nag ak yaxante gi commerce gi parce que commerce la tudd bàyyi li yeneen liggéey yi ndax commerce bi yow mi koy def maanaam foofu da ngay gis client baa ngi nii indi na léegi million am wala milliard mi ngi nii daf ko war a daf la ko war a jox léegi fi mu toll boo nee xaar moo ma ñëw julli ji ñëwaat léegi nga daal yàq yàq sa commerce bi client yaa ngi ni te ñeneen ñi ngi nii dañuy jaay mu ne la déedéet bàyyi loolu nga dem nga julli ji ndax loolu bu nekk fa yàlla li ne fa yàlla moo gën lii loolu muy wërsëgu baatin bale moo gën wërsëgu zahir bi ndax moom wallahu buur yàlla xayrur raziqina mooy gën ci kii wërsëgalaat voilà euh, maanaam kon gis nga même problème yi ñuy dégg fan yi euh, yëpp problème yi ñuy dégg fan yi ci affaire jumaa yi gars yi war a julli jeeg parce que feebar bi dafa tasaaroo ainsi de suite bëri na ci ñoo xamante ne fii mu toll lañ koy kaas di ko jàmbat mais tey ku leen joxoon mille euros ñu leen mille euros ñi nii liggéey bi nag vendredi la heure bi nga xool heure bi xool programme bi xam ne heure bi heure julli la doo dem julli ci da dem liggéey ji ko ñaata nit tey ñoo toog maanaam am na liggéey yo maanaam gëj nañu dem àjjuma julli ji parce que nee nañ heure yooyu da leen di fekk ñu liggéey mais ñen nag ci ñooñu ngay gis ñuy kaat di jàmbat affaire way jumaa yi lu tax ñu koy tëj nangam nangam yàlla nañu yàlla sàmm ci loo xamante ne dëgg-dëgg dafa nekk loo xam ne dafa dañ ko war a def bon loolu masala yi euh, fiq la wala yu mel noonu yoo xamante ne xëy na taxuñoo jóg mais li nga xamante ne moom lañu war a leeral daal foofu mooy ne alxuraan bi muy wax fii nii da gis ne saa yuy wax foofu da ngay wax dangay ngay gis mu jëfandikoo baatu na ñu gis ne borom subhaanahu bokk na ci tur mi mooy ciy wërsëgalaate lii nag dafa am beneen point bu muy leeral comme ni muy wax xayru raahimina wa anta arhamu rahimin yow yàlla yaay ki dàq yërëme ci ñi yërëmaate loolu day wane ne ar ar rahim wala ar rahim tur la ci turu yàlla yi comme ni ar raziq ak ar razaq nekkee tur ci turu yàlla yi naam alquran indi na ar razaq waaye indi na ah, xayru raziqina dégg Euh, léegi bilaa na mooy ci lu amutuk yokkat mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ni muy wërsëgalee maanaam amul coono gu gu ko ci fekk exemple biñ joxe woon léegi moom mooy tey man su ma doon wërsëgal maanaam ci hadis sayyidina Abu Zar radiyallahu anhu maanaam tey sama euh, ki kooku ma def ci sama jeu vidéo bi wala ñooñu noonu maanaam mënoon naa leen a wërsëgalal li gën a rafet ci àdduna bi maanaam tant que compétence yaa ngi ci man maanaam tant que man maa ngi mën a programmer ci sama jeu vidéo bi wala sama film bi maa ngi ciy mën a programmer ay ay ay ay ay ay ay euh, maanaam décor bu gën a rafet bu mën a am maa ngi ko ci mën a programme di ci mën a programme alal ju gën a bari maanaam loolu maanaam man du ma wàññi dara du ma sonnloo ci dara tant maa ngi am compétence boobu maanaam léegi nag imaginer tey bu fekkente ne benn ingénieur informaticien la boo xamante ne compétence am ci mbir mi dafa illimité mu war a mën a wërsëgalal saa su ne maanaam ngay gis ne du ci am euh, euh, du ci am benn benn benn coono te bu doon doomu aadama yi na nag maanaam li nga xamante ne moom mooy nit ñi bu doon mbindeef yi la ñoom ñoo yor loolu kon ba tey sonn nañ kon ba tey yokkat nañ mais parce que borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa aajowoowul dara aajowoowul lenn na soxlaalul dara te kàttanam ak mën-mënam maanaam dafa amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam loolu mom motax manam mom moom manam mu meuna yor wërsëgu mboolem minde fi te duko ko dara te du yokkat ci nim mu leen di wërsëgale alors ko bu doon doomu adamay yi léegi tay buñ ko yoroon léegi tay ni commencé am problème parce que ni ñuy dépenser dañuy gis ne alal jaa ngi génn ji mi ngi dem parce que lutax parce que ñom li ñu yor dafa am fu mu yam manam dafa jeex day jeex trésorerie bi day jeex manam lu nit bari bari bari alal ay ay ay ay milliers de milliards tamit léegi day jeex. gis nga fi mu toll ak problème bi gars yi am ni état français bi maanaam gis nga ni mi ngi génne ay ay mille ay centaine de milliards même sax dañu wax milliers de milliards ci ay euro boo xoolee eh, États-Unis noonu lañ def mais terewul maanaam da ngay gis ne ñëpp fi mu toll ñi ngi xalaat maanaam pop képp kuy kuy kuy ku bokk ci peuple bi rek mi ngi xalaat naan nan la maanaam après eh, maanaam conséquences yi nga xam ne moom la nar a am ci économie bi après maanaam nan la gars yi mën a tenir affaire boobu parce que nguur gi nan la mën a amee doole gu mën def loolu maanaam su ko defee ba pare maanaam bu il faut pas mu tenir mu mu dem ci temps bi parce que su su nekkee dans la durée rek léegi tey ñëpp torox loolu li ko indi mooy ne am am gi daa am fu mu yem maanaam am am gi dafa am ay limites euh, borom subhanahu wa ta'ala ni loolu ci ñun doomu aadama yi mu ne ku law antum tamlikuuna xazaa'ina rahmati rabbi idan la am xashyata al infaq wa kaana al insaanu qatuura waxal ne yéen ñii de bu fekkonte ne da ngeen a moom maanaam magasin yërmandeg sa borom subhaanahu maanaam mooy xéewalam yi wërsëgam yi al maanaam magasin yi yëpp borom subhaanahu wa ta'aala ko teg teg teg ko ci seen loxo ne leen gérer leen mu ne idan kon bu boobaa la am amsaktum dana leen jàpp dégg nga waxul sax dina leen dab dina wala di di di di ngeen mel nii déedéet def ne loolu moo leen di jàpp xasyatal infaq maanaam ragal gi ngeen di ragal a dépenser <laughs> di jël alal ji di ko dugal ci ay cadeau yu baax maanaam ragal googu moom moom maanaam loolu da leen di da leen di da leen di téye <laughs> mu ne wa insaanu qatuura nit daal dafa ngott maanaam nit par essence moom mooy calculer alal ji fii lii bu ma ko dugalee fii fii nangam nangam maanaam kon yooyu borom bi nag subhaanahu wa ta'aala loolu moom mënu koo dal yooyu yëpp day wane faiblesse bi doomu aadama amee maanaam mbindeef yi ñoom ni ñu ñéewee doole ci kanamu buur yàlla subhaanahu wa ta'aala borom bi subhaanahu rek moom moo amul aajo woowul dara maanaam yii yëpp ay leeral la ci ni ci ci ne borom subhaanahu moom mooy qayyumun laa yanaamu mooy ki nga xamante ne moom moo taxaw boppam te taxaw mboolem mbindeef fii te du nelaw et moom day bind te aaju woowul mbind gi maanaam li mu yor ci ay xeeti wërsëg non seulement amul fu mu tàmbalee du am fu mu yam waaye moom da cee soxlawul dara nekkul ne daf kaa soxla moo tax mu mu créé ko déedéet daf koy defal jaam yi te du jeex saa yu ko bëggee daf koy daf koy joxe. maanaam moom jariñ gi ñuy jariñ moom loolu du ko wàññi dara waaye du ko yokk dara niki noonu su ak lor di tukkee ci moom ci xikmaam ci sagesam ba war a yegg ci ñun ak maandu teem maanaam ci ci ak ci maandu teem maanaam lor gi war a yegg ci ñun lor googu du ko jariñ dara te du ko wàññi dara alors que ñun tey fi mu tollu képp ku ci lor kenn maanaam dangay gis ne day jàpp ne xëy na day faj ak meram wala boog ay stratégie yu muy tëral la ngir mën a jariñ boppam wala boo ngir dàqal lor ak ci boppam alors que borom subhaanahu wa ta'ala moom amut loolu kon ñu ngi koy ñaan mu dotti ci ñun ay xéewaleem ak ay ci ay wërsëgam ak yërmandeem ci zaahir ak ci baatin ci barke rasulullah alayhi salaatu wassalaam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين